trois à quatre éléments comprendre mm. il faut d'abord les électeurs il faut la, la justice pour proclamer les résultats et il faut euh, l'administration publique qui organise bu ci benn élément manqué c'est des éléments constitutifs bu la neexee nga teg ko fenn mais on peut il peut y avoir une lecture politique ci biir lecture juridique bi la lecture politique mooy Macky Sall en fait si Macky Sall dafay divertir opposition bi en quoi faisant en quoi faisant c'est-à-dire que euh, décret bi euh, bi convoqué woon corps électoral bi. Hmm. génne na beneen décret ne leen convoqué tuma leen. boobu d'accord nañ mais décret bi wax ni fixé kii bi. ba léegi beneen décret bu ko bu ko. annulé kii bi kon mën na am. léegi est-ce que du président Macky Sall day divertir gars na la leen di divertir xam nga fan yi à part Pastef à part Bassirou Diomaye Faye. coalition kenn campagne atul. waaw comprendre on a perdu dix jour hmm. ñu dem ba ci cëppaandaw ga justice bi ne ko léegi euh, sa loi constitutionnelle bi. Ouais. c' est mu ni léegi man d' accord naa on va tenir l' élection le vingt qui février. vingt cinq février vingt cinq février. léegi damay respecté corde yi su boobaa on aura perdu quinze jours léegi opposition bi nga xamoon ni baissé woon nañu garde pour ñu mën a mobiliser waat militants yi ñiy dem jëli seen i carte électeur ñiy dem former seen plénipotentiaire ñiy def seen logistique ce serait déjà trop tard est-ce que comprends nga ñu dugg ci élection yi ñoom ñu def seeni résultat résultats et cetera et cetera première grille d'analyse euh, deuxième grille d'analyse mooy décret bi abrogé élection yi ñëwagul ñu dem ba fële conseil constitutionnel ni président Macky Sall Euh, ce décret bi c'est anticonstitutionnel léegi man conseil constitutionnel man may fixer une nouvelle date mais en tenant compte des contraintes. Oui. de temps et cetera léegi campagne bi dootuñu ko mën a defati vingt et un jours exemple on le fait quinze jours est-ce léegi au lieu ñuy def lii lii na ñuy def parce que pour man conseil constitutionnel il faut qu'on respecte la date du délai ñoom am délai yu rétréci pendant ce temps l'écrasante majorité de l'opposition bàyyi nañ moo tax ma bëgg a invité oppose euh, les vingt candidats hmm. dem leen campagne yi ah parce que c'est fort probable bu dul le vingt cinq hmm. ce sera une date très rapprochée ci vingt cinq ci mois de mars bi ci la ñuy tëgg élection yi te am na benn niveau de lassitude hmm. bi leen di affaire yi attaqué bu ñu defee élection yi vous ne gis nga ni muy demee sur le terrain voilà <laughs> moo tax moo tax voilà très bien moo tax moo tax. fu mu toll nii seul Diomaye hmm. le camp de Diomaye ñoom ñoo nga ca. comprendre la hmm. ñoom arrêté wuñ c'est-à-dire fi ma bëgg expliquer foofu mooy attention à la euh, à l'arme de distraction massive de Macky Sall. Hmm. loolu mën na nekk hypothèse que da leen di ndigg sërëxal ba yéen ñëpp ngeen découragé mu xëy suba mais su boobaa euh, comme Diomaye <laughs> moom mi ngi fi rek <laughs> liñ naan Diomaye yi fàtt bunt bi xam nga moom Diomaye mi ngi fàtt bunt bi sinon aussi mën na bañ a nekk rien de tout ça. mën na bañ a nekk rien de tout ça et que effectivement le président Macky Sall. Oui. peut-être euh, a été rattrapé dans ses calculs peut-être euh, il aurait donné la garantie ay oui euh, que à l'issue du dialogue euh, Karim dana bokk xalifa bokk et qu'en définitive Khalifa bokk <laughs> Karim bokkul. et que certains lui en veulent, d'autant plus qu'ils vont lui en vouloir que Diomaye qui n'était même pas prévu dans les scénarios, oui. encore moins dans le scénario génn quoi et que les gens lui en veulent et que par voie de conséquent nañu xajamal lépp jaxase ko quoi comprendre ñu ñu lépp perte et donc on est dans cette logique là et là on attend le Conseil constitutionnel. Mm -hmm. et moi j'espère oui. que le Conseil constitutionnel va dire le droit. et en disant le droit le Conseil constitutionnel va arrêter une nouvelle date pour la présidentielle en tenant compte de la date du 2 avril bi nga xam ne ci la mooy mooy euh, passation de de service même au prix de raccourcir les délais de la campagne électorale est-ce que comprends su ci xajee c'est-à-dire là dañuy def rétro planning hmm. bu ci xajee mois de mars ñaata la euh, mars c'est 30 ou 31 comprendre soo ci génnee Euh, on le temps sax pour faire vingt parce que février jeexagul. Hmm. comprendre nga même après dañuy dugg ci voilà même bu fekkee dañuy dugg ci koor gi sax. Hmm. jar na ko est ce que ah, comprendre nga parce que dañuy fekk ci koor koor je pense le onze. le damay fekk ci koor gi sax jar na ko est ce que comprendre nga mais l' essentiel ñu mën a tenir l' élection dans les plus brefs délais def la campagne électorale. et hmm. donc man moo ci li ma yaakaar. conseil constitutionnel dana neenal. dana neenal dëkk waaw bu ko neenalee nag moom conseil constitutionnel moom mooy arrêté date bi ñuy def élection bi te du àgg décembre. décembre en tenant compte. du 15 du alors conseil constitutionnel boobu nga wax. beneen mbir tamit bi ci feeñ mooy tuuma yi ñu yëkkati xam nga waxoon nañ fi commission d'enquête parlementaire. Mhm. mujj naa naax saay ndax plainte bi nga xamante ni kenn ci juge yi Cheikh Ndiaye dugaloon na ko plainte boobu procureur de la république mujju na ko euh, téye. daal di koy euh, euh, euh, doxal mhm. ba informer assemblée nationale kon commission d'enquête bi seen liggéey jeex na fi mu ne nii justice moo téye mbir yi fu bu ñu waree su situer conséquences yi su dee justice fi ne nii taxaw na ci pour dem mooy ni mbir yi fala budda moom bu dee justice dana leer mhm. bu yeggee ca cappaandaw ga <laughs> lan nga yaakaar ni mooy am waaw donc mooy li ma la doon expliquer l' autre jour mais euh, avant may expliquer Ousmane. oui a envie de dire euh, tout ça pour ça. Euh, oui d' enquête. très bien kon ah, donc kon donc on a on a euh, li moo taxoon ñu annulé élection yi quoi <laughs> ñu ñu campagne bi quoi <laughs> comprendre nga. entre autres oui est ce nga. mais tout dépendra conseil constitutionnel gis nga dossier bi Ousmane. Mm. ci lay sénégalais yi doxee. naw leen ba faaw wekk leen ba faaw wala génn ci ñoom ba faaw. ci dossier bi waaw ci dossier bi. comprendre naa. Hmm. ça dépend ci ñoom niñ ciy taxawee. ça dépend ci ñoom nan lañ ciy taxawee. comprendre hmm. parce que lii mosul am. comprendre naa. waaw fii euh, dëkku gor la. rey nañ fi sax juge mais kenn mosu fee tuumaal yi tuumaal yi juge. comprends te Sénégal euh, ay dëkk gelawaar la ay dëkk jàmbaar la. Mm. ñeneen ñi nga rey leen sax moo leen gënal. nga teg leen ci seen der comprendre nga. Mm. ndax Sénégal mooy dëkk boo xam ni lay bax ca cin la dee su ko togg lay bax ca ñoom dëgg. Mm. dee su ko togg. sénégalais lay bax ci moom dëgg. de su ko togg. waaw comprends faat nañ fi juge. mais lii nii Sénégal mën naa àgga jox ba ci faat mais lii nii nii nii euh, sos ak tilimal deru gor kooku. affaire bu yéeme la mi ngi doog a am moo tax man lay foog ñu def le procès de SPD ñii. Hmm. ñoom il faut ñu def seen procès politique waaw il faut ñu def seen procès politique. taxawaayu les religieux. juñu naa ko sànq ci bi may tàmbali dégg nañu teewoon euh, ci ak communiqué boo xam te ne nañ ko démb ci guddi laata boobu aussi déglu nañ jàngo bi euh, am na jàpp ne xëy na doyut war na ñeneen ñi gën a yëkkati seen euh, i seen i seen i kàddu. Mm-hmm. da jàpp ni fiñ ci toll nii. Euh, li jot a feeñagum. Mm-hmm. ci ñoom ci ay wax euh, war naa doy sëkk waxaaleel ñeneen ñi am déet. Mm-hmm. waaw xam naa tey moom <laughs> waaw euh, su ma ko doon analyser ah. bon kilifa diine yi am na kilifa diine gu génn wax. waaw ah. am na kilifa diine gu ni moom waxul day fatu. fatu na am na kilifa diine bu wax mu ne moom day yónnee ay jinneem hmm. comprendre <laughs> waaw xam nga li ma la donc euh, euh, monseigneur Benjamin Ndiaye moom léegi nekkatul Benjamin léegi seigneur Ndiaye la <laughs> monseigneur seigneur parce que moom euh, taxawaay bi mu taxawa ak wax ji mu wax tax na mu déclassé catégorie il n'est plus un benjamin yaa ngi fàttaliku temps football ah. Yeah. pipi benjamin, benjamin minime yeah. cadet senior et waaw donc euh, monseigneur et comme c'est un Ndiaye si <laughs> euh, di sama cousin doublement parce qu'il est un Seereer. tey nañu tàmbali ñoom it seen koor gi tey tàmbali seen carême donc euh, dama koy jox yóbbal koor <laughs> euh, parce que. sama sama kal la. Hmm. Euh, Njaay la sant ma sant si. Hmm. mais si séeréer la tukulóor la <laughs> euh, tey muy ibbi kooram doon nu ma mënti def rek jox ko yóbbante koor ndax pag ba moom mu sañee dana ñëw lekk si ngalax <laughs> waaw.